nekk ay naafeq sàcc yi ci lañ jaalokat yi agresseur yi tappalekat yi yi détourné yi triandé yàpp ñooñu ñoo composé nag société bi nga xam ne mooy almuslimun ñi nga xam ne wax nañu ne ay jullit lañu looloo tax borom bi subhanahu wa taala dàqul ci ñoom ñu nekk ci keppaaru islam walakin qulu aslamna wala ma yadxulil imaanu fi qulubikum wax leen ne rek waaw nekk nañ ci keppaaru islam waaye nag iman bi moom duggagul iman bu duggee rek yii ñu wax yépp amul lenn loo xam ne nit ki da ciy jaarati ndaxte laa yazni zani hiina yazni wa huwa muslim ولا يسرق سارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب سارق الخمر حين يشرب وهو مؤمن kon day nekk muslim mu ne kii nga xam ne day njaalo munu koo def ca heure booba lu dul iman nekkatu fa sàcc ba munul jël lu dul islam nekkatu fa kii jël lii nëxal am xelam munu koo jël lu dul islam nekkatu fa moo xam ne ñuy naan la ñuy fikir la ñuy log la ñuy xeñtu la lu mu mun a doon daal bu bu koy def rek xamal iman ba moo toxu li fa des kay mooy turba mooy al islam boobu nga xam ne mooy wone ab iman kon mu ne boobu nag borom xam-xam ahlu sunnati wal jamaa dëppoo nañu ci ñaari mbir ñu wuute ci ak yeneen kuréel yi kuréel yi ñu dëppoo mooy al imaanu qawlun wa amal loolu dañ ciy dëppoo ñoom al imaanu qawlun wa amal iman moom fokk rek mu nekk wax ak jëf ñaar yooyu bu àndul iman du am kon ñu wute ci ak kuréel yu bari nga xam ne dañu jàdd yoon jàpp ne nit bu ne gëm naa rek jeex na ñaareel ba al imaanu yaziidu wa yanqus wa yaziidu bi taati wa yanqusu bil maasiya ñoom dañu dëppoo ne iman ci boppam dina yokku dina wàññi dina yokkoo jëf ju baax ak topp yàlla dina wàññeekoo safaan ba ki nga xam ne mu ngi jëf lu baax juróomi julli mu ngi koy def te jàkk ja di góorgóorlu naafila di def tahajjud kooku imaanam day dal di jóg ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo koy jàppale waaye ki nga xam ne safaan ba la du jaar fu jàkkane du jaar fa ñuy jàngee fu ñuy feccee mum fa fu ñuy defee lu bon mum fa kooku itam imaanam day dal di wàcc ba mu jeex wal iyadu billah kon ñaari tomb yooyu ahlu sunnati wal jamaati ñoom dañu ci dëppoo waaye ñu wuute ci ak yeneen kuréel yi nga xam ne duñu natt seeni mbir ci yàlla ne na yonent bi ne na waaye dañ koy natt ci xel amma bu ñu delluwaatee ci iman am na lu ñuy tuddee shu'abul iman maanaa xaaju iman donte nit ki mënu koo peeg ci benn mbir mu dal di ne yii rek ñooy xaaju iman waaye muallif bi rahimahullah mu ngi ko tàmbalee ci waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu waxoon ne al iman wa huwa bid'un wa sab'una shu'ba fa aalaha قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان kon ci wax jii nga xam ne salawaatullahi wa salaamuhu alayhi leeralee na ko lii nga xam ne mooy imaan mu ne ñu imaan boo ko buggee xam juróom ñaar fukki xaaj la ak lu teg bid'un mooy diggante ñett ak juróom-ñeent lim bi nekk diggante ñett ak juróom-ñeent moom la ñuy tuddee bid'un moo tax léeg-léeg dañuy wax juróom ñaar fukk ak lu teg mun naa teg ñett ñeent ba mu àgg juróom-ñeent waaye du àgg juróom-ñett fukk kon mu ne juróom-ñaar fukki xaaj la ak lu teg waaye la gën a kowe ca xaaj yooyu mooy nit ki wax laa ilaha illa allah te gëm ko booboo gën a kowe kon bu ñu seetee kaddu googu xawlun lu wax la waaye benn jëf la kon yonent bi mu ñuy woon fii ne iman ni ko ahlu sunnati wal jamaati waxee ñu ngi ko jëlee ci tegtalu yonent bi sal allah sallam mooy waxam jëf kon wax bi dugg na mooy laa ilaha illa allah mu ne wa adnaaha la gën a suufe nag ci iman mooy imaatatul ada ani tariq kooku amalun mooy nga gis luy lore ci yoon nga jëlee ko loru gaañ wala loru taqal nga gis loo xam ne day lor ab jullit wala safaan ba même ku dul jullit waaye kuy jaar ci yoon woowu rek mun na koo lor moo xam am xeer wuy gaañe ab weñ wu fa ne ab ndox mu salte nga dal di ko fa jëlee loolu jëf la waaye moom itam junj na jëf ba gën a néew kon bu ñu tuddee la gën a néew la gën a rëy li maa bin aw la ki koy dindi yaakaar na ne lii de moom du ma jëriñ dara bàyyi rek ma jëlee ko fi waaye awma ci njëriñ waaye yëgul nag borom bi subhanahu wa taala bindal na ko ci ab njëriñ ndaxte def na benn effort ngir mbokkam jullitam bu mu am lu ko nax kon loolu itam mooy amal foofu jëf ñëw na ndaxte li nga ñëw mooy ab xeer sëgg dal di ko dindi def nga benn effort def nga benn action kon loolu nekk na jëf waaye am na lu digg doomu mu ne nu wal hayaa'u shu'batun min al iman wal hayaa am looy bañ am looy rus am looy ragal mu ne loolu kat dafa bokk ci xaaju imaan yi ndax ca nit ki war naa rus borom bi subhanahu wa taala def ñaaw te lekk wërsëgam dëkkee këram di ko ñaan itam di def la mu tere dëgg dëgg doomu adama war naa rus loolu doomu adama dëgg mu ne dafa war a rus loolu su fekkee ne nag am na iman iman boobu nag moom la junj fii su nekkee ci doomu adama bi dina rus loolu ci kanam borom bi subhanahu wa taala loolu la junjoon feneen alhayaa'u la yaati illa bi xayr mu ne am looy rus am kersa mu ne du indil jaam bi lu dul yiw waaye borom xam-xam bi nag am na fuñ ko tënkee alxaya alladi la yamna'u attaalluma mu ne nag mooy kersa bi nga xam ne du la teree xam lu amma bépp kersa buy teree xam lu loolu sharia du ko tuddee kersa kooku moom sharia da koy tuddee aljahlu muy réer nit ki dafa war a xam lu diineem lu mu mun a doon rek nit ki war na ci am yitte ngir mun koo xam kon ni ñu ko junjee bid'un mooy diggante ñett ba juróom ñeent kon loolu lenn la ci xisaal al iman maanaam xaaju iman yi kon yonent bi tënk na ko ci yii donte am na yeneen ahadis yu ciy dugal yeneen waaye hadis bi ci lii la ko tënk am na benn borom xam-xam bu taalif kitaab al yawm wal layla yani amalu yawmi wal layla al imam nasai junj na fay xaaj yu baree bari junj na fa ay xaaj ba mu toll ci lim bi hadis bi junj waaye yokk na ci ay leneen waaye nag am na ci ñuy wax ne loo ci yokk rek boo seetaatee dina fekk mun nga koo dugal benn ci tomb yi nga xam ne ñooy juróom-ñaar fukk ak lu teg kon li gën a màgg te ñu jiital ko ci xaaju imaan yooyu mooy kaddu bi koy dugal ci diine te mu nekk kalimatul ixlaas wala kalimatul iman te loolu la borom bi subhanahu wa taala di junju tuddee ko al urwatul wusqa buum bi nga xam ne dafa dëgër du dagg du firenceku du tekkeeku kon buum boobu ku ci jokku te bàyyiwuloo ko boo demee fa mu fasu foofu mooy aljanna boo demee fa mu fasu foofu mooy aljanna moo taxoon borom bi subhanahu wa taala junjal ñu ko mu dal di ñu won ne lu ngeen war a bàyyi xel la waaye nag buum bi balaa nga koy téye foog nga weddi lu dul buum bi wa man yakfur bi taaxut wa yumin billah faqad istamsaka bil urwati lwusqa lanfisama laha mu ne ku weddi lu dul borom bi subhanahu wa taala weddina mboole seen lu dul borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku day jafandu na ci buum bu dëgër bii nga xam ne mooy laa ilaha illa allah nga xam ne boo yemee ci laa ilaha yàlla sax weddiwaale la waaye illa allah kon iman balaa muy dugg rek weddi am leneen lu dul borom bi subhanahu wa taala foog re nga dal di ko weddi nga gëm ne indi njëriñ jañ safaan ba jubal ci wàllu texe baa texe wa di nekkul ci loxo kenn ci loxo borom bi subhanahu wa taala la nekk loolu nga dàq ba nga ne laa ilaha loolu nga saxal li mu nekk ci borom bi subhanahu wa taala ba nga ne illa allahu loolu la borom bi dàq fële wa man yakfur bi taawut ku weddi leneen lu dul yàlla moo xam nag taawut boobu doomu aadama la wala ab xeer la wala ab jinne la wala ndox la wala leneen la lu mu mun a doon rek su fekkee ne jàpp nga ne ci loolu ngay jokku ba mu yeggal la ci lii ñuy tuddee aljanna kooku dina fekk def nga ko ak taawu su fekkee moom nag yëgul tirul loolu du ko dugal moom ci boppam mu nekk taawu waaye yow ci sa bopp nag sa jëf jooju day nekk ab taawu ndaxte loolu li koy wone am na ñenn ñu doon jaamu lenn ci ay malaaka lenn ci ay yonent te yooyu du dugg ci kàddu boobu ndaxte kañuy jaamu benn yëgu ko wala yëg na ko waaye neexu ko da ci munul dara tawaaxiit yooyu nag am nañu ay kilifa ki nga xam ne moo leen jiite muy iblis allain mooy cheytaane boobu nga xam ne moo taxaw géñ ci turu borom bi subhanahu wa taala mu ne ko dinaa réeral sa jaam yi dinaa fexe daal heure bu la jaam yi di wuyu si da nga fekk ñoom ci boppam dëgguwuñ loolu moom dinaa ko def borom bi ne ko jaam yaa ngóog yaa ngóog yaag jaam yi yéen a ngóog waaye ñi ma gëm mënoo ci ñoom dara waaye yaag jaam yi nag mu ngi loolu bu la neexee jëfandikul sa loxo jëfandikul sa tànk waral ay fas lu la neex daal defal moom itam mu ne waaw borom bi subhanahu wa taala ci sa yoon bu jub bi laa leen di xaar yow wu jub wii nga xam ne ki farlu ne na mu ngi bàyyi lu bon mu ne kooku nag mooy sama sama préoccupation yépp mooy kooku waaye ki nga xam ne moom topp na ma kay amatuma ci moom soxla kon loolu ki bugg a jub xam ne fokk nattu dal di ñëw nattu boobu mun naa nekk nattu ñàkk mun naa nekk nattu am mun naa nekk nattu njoboot mun naa nekk nattu feebar mun naa nekk nattu topp sago mun naa nekk nattu rëy rëylu kon nattu yi dañu bàyyi bu ci nekk rek borom bi subhanahu wa taala dina la ko nattee su fekkee ne dëgër nga borom bi subhanahu wa taala nangu nag sab iman ndaxte gën a li nga ko moom ak bëgg-bëggam ci sa bëgg-bëgg yow moo tax léeg-léeg ñu ne dañuy wax aduna uxdumi man xadamani wastaxdimi man xadamaki yow aduna liggéeyalal képp koo xam ne moo may liggéeyal man borom bi subhanahu wa taala aduna nekkal jaamam da ngay gis aduna mooy nekk jaamu kooka mu ne waaye képp ku nag fas yéene liggéeyal aduna nag mu ne aduna yee itam def ko jaam da nga gis doomu aadama boo xam ne dañ ko yërëm ci lu ne dina dina ci sonn ba mu des ci xamlu ak jaamu borom bi subhanahu wa taala kooku aduna moo koy liggéeyee dajale ba mu bari rek borom bi subhanahu wa taala ne ko lii du sa wërsëg dal di ko yóbbu musiba dal di am mu dem foofu xasira dunia wal axira inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nekk koo xam ne ñàkk na adunaam ndaxte noppalekuwul lekkul naanul waaye ñàkk na àllaaxiram ndaxte yóbbaalewul benn diyaabu kon loolu nit ki da ci war a bàyyi xel loolu la yonent bi dund mu ne borom bi bu la baaxee waaye na gis jeexantalu mbaax boobu ci yëpp baaxee na la waaye lekkal naanal solul dimbale kon loolu mooy jeexantal bi waaye baaxee na la doo lekk doo naan doo solu doo dëkk doo def dara yow ku la gis rek yéene la ab sarax te fekk mbir mi yépp sotti na borom bi subhanahu wa taala mu ne kooku aduna mu koy jëfi kooku dafa nekk koo xam ne déggul dëgg dëgg lii nga xam ne mooy iman yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala dégguloo kon iman boobu nga xam ne xaaj nañ ko xaaj yooyu mu allif bi neñu wa arkaanuhu sitta mu ne su fekkee ne ponk yi iman yi la mu ne yooyu moom juróom benn la wonewul ne nag xaaj yi juróom benn lañu ponk yi nga xam ne xaaj yi yépp ci lañuy dellu nga xam ne mooy mbir mi mooy cosaan bi mooy ndëgërlaay bi loolu bu amee rek yeneen yi mun naa am waaye loolu bu ñàkkee amatul benn xaaj bu mun a ñëwati lu dul juróom benn yi ñoo am ba pare mu ne juróom benn yooyu ñooy an tu'mina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khayrihi wa shar kon mu ne juróom benn yooyu la benn bi ci jiitu mooy gëm yàlla mooy laa ilaha illa allah mooy gëm yàlla mooy bi ci jiitu ñaareel ba gannaaw ba nga gëmee yàlla ngëmub yàlla boobu moo lay yóbbee nga gëm malaaka yi ndaxte borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne ki wàccee li tax nga xam ma mooy qur'anul karim mooy jibril alayhi salaam kon foog nga gëm ne malaaka yooyu dañoo am te fokk itam nga gëm ne borom bi subhanahu wa taala boole na la ak ñu lay aar di la sàmm di la saytu di déglu say kàddu di xool say jëf di ko bind fa inna alaykum la haafidina kiraman katibin yaalamuuna ma tafaluun kon gëmub malaaka loolu la lay jënd kon boo ko gëmee da ngay gis ne da ngay mun a sàmm sa bopp bu baax a baax ndaxte dangay gëm ne foo mun a ne foo mun a taxaw kiraaman kaatibiin ñu ngi nekkal yow di bind di enregistré lépp loo def rek ñoom xam nañu ko te dinañ ko bind yóbbul ko borom bi subhanahu wa taala te gannaaw boobu itam nga gëm ne nag boo rafetalee nga daje ak malaaka yërmande yooyu nga xam ne ñoo lay xaar buntu aljanna di la wax ne udxuluha bi salaamin aminin kon loolu itam dangay xër ca ñooña waaye nga gëm itam ne boo rafetalul am na yeneen malaaka yoo xam ne mooy malaaka yi mbugal te borom bi subhanahu wa taala deful yërmande ci seeni xol te may na leen ab kàttan te bolaa ñuy bég rek mbugal ci bañ a jaamu borom bi subhanahu wa taala moo tax borom bi junjal ñu ko mu nañu woowal ku la yaakaar boo jubul sanadu sabaniya man dinaa woo ñi nga xam ne ñoo may dumal te ñooñu itam ñooy xaar ñu bon ña ñu yées ña ca safara borom bi subhanahu wa taala wax nañu am na foofan ñan gilaadun shidaadun la yasuna allaha ma amarahum wa yafaluna ma yumarun yal nañu ko borom subhanahu wa taala xam-xam mu ne xilaas aka ñoo am doole shidaat aka ñoo soxor te li leen borom bi subhanahu wa taala sant rek la ñuy def te borom bi xam nga lim leen sant mooy sama dóorkat yi sanad u zabaniya kon lim leen di sant mooy dóor leen kon moo tax ba jaam bi commencé di rëccu mu ne ndeysaan sama alal jëriñu ma sama autorité alak na ma borom bi subhanahu wa taala mu ne malaaka yi lu ngeen di xaar xuzu fa hullu summa aljahima sallu summa fi silsilatin zaruha sab'una ziraan fasuku fii muy nekk naan nangam jëriñu ma sama alal ak lii ak lii jarul ngeen koy xaar bu leen xaar muy noppi yeew leen ko tunqom leen ko dóor leen ko sànni leen ko ci biir safara kon gëmu malaaka loolu lay dimbalee ab doomu aadama kon fu mu xelaat def lu bon rek dina xelaat ne ah am nañu taxaw di ko enregistré mu dal di dellu gannaaw dal di xam ne munul nëbbu munul laqatu kon malaaka yooyu am na yu borom bi subhanahu wa taala tudd ci ay tur yu ñu ràññee am yu mu jox itam ay dàkkental bokk na ca ñamu tudd jibril mikail asrafil ak malakul mawti walla boog malik léeg-léeg ñu ne kooku mooy maliku niiraan ak ridwaan ak ñeneen ñi nga xam ne jox na leen rek ay dàkkental lu mel ni nakir ak mun nakir lu mel ni yeneen yi nga xam ne noonu lañ mel waaye tur yii moom borom bi subhanahu wa taala daldi na ko junj ci alquranul karim rot si na ci sunna yonentu bi sal allahu alayhi wa sallam léeg-léeg nag ñu tut gis beneen tur bu ñu yokk waaye doo ko fekk ci téere borom bi subhanahu wa taala doo ko fekk ci sunna yonentu bi sal allahu alayhi wa sallam mooy kooku ñoo ajrail ñu naan mooy malakul mawti tur boobu nag doo ko fekk lenn ci tegtal yu wér yi te ñu xamul nag tur bi fu mu jógee ndaxte borom bi subhanahu wa taala malakul mawti rek la koy tudde malakul mawti boo demee ci ahadis yi malakul mawti waaye ñu jox ko turub ajrail loolu moom gisuñu fu mu sax ci ay tegtal wa kutubihi ni nga gëmee malaaka yi war nga gëm li la waxal turu malaaka yooyu ak nekku malaaka yooyu mooy téere yi téere yooyu nag mooy bépp téere bu ñu wàccee bu jóge ci borom bi subhanahu wa taala mu wàcc ci ab yonant ñun ñi mujj a ñëw day nekk wareef ci ñun ñu gëm mboole seen téere yooyu imaanan mujmalan imaan boo xam ne rek gëm nañu ne rek tawraata wàccoon na fala yem amma téere bi nga méngool nag foog nga gëm ko imaanan mufassala imaan boo xam ne dañ koo feddli benn ci benn ba lépp li nekk ci téere bi dañ koy gëm amma yeneen téere yi moom dangay gëm ne rek tawraata daal joxoon nañ ko muusa gëm naa ko injil joxoon nañ ko isa gëm naa ko zabur joxoon nañ ko daawud gëm naa ko suxuf ibrahim joxoon nañ ko ko gëm naa ko yaxya joxoon nañ ko kitaab te tudduñ ko kusil kitaab lañ ko waxoon gëm naa ko amma qur'anul karim dangay gëm alif ba njëkk ak ya ba mujj daa mujj lépp ngay dal di gëm boo ci weddee lenn rek wa anta kafirun imma an tumina kullahu aw an takuna kafira foog nga dal di gëm yépp moo taxoon borom bi subhanahu wa taala dal di ko junjal ay yahud afa tuminuuna bi ba'di alkitab wa takfuruuna bi ba'd xanaa da ngeen di gëm lenn dal di weddi leneen léegi da ngay gis lenn ci doomu aadama gëm lenn dal di weddi loolu léeg-léeg bu fekkee ni bugg naa ñaan gëm na qul huwa allah xal foog mu jàng qul huwa allah léeg-léeg su fekkee ne jàdd na ab yoon bëgg a nekk ab njabarkat foog mu dajale yenn ci ay aaya borom bi subhanahu wa taala fu mu doon nettali ay mbir rek mu dajale aaya yooyu gëm ne aaya yii dal waxu borom bi la kon nit ki mun na koo jëriñoo ci nangam waaye am na beneen aaya bu fa nekkoon tere na ko jëf jooju muy def waaye aaya boobu moom da koy dugg kon nag loolu mooy wone ne gëm na lii nga xam ne yaakaar na ne intérêt ci la nekk waaye safaan ba moom mu dal di ko weddi boo waxee mu ne la téere borom bi subhanahu wa taala alquran la quran lépp mu ngi ci naam lépp a ngi ci waaye naka la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam appliqué woon léeg-léeg di ngay gis ahadis bu wér ñu daldi ci sof kàddu gu wérul yonent bi salaa sallam moo wax ne zam-zam lima shuriba falay mais da ngay gis ñoom ñu ne la zam-zam lima shuriba wal qur'anu lima quri'a naan la zam-zam yonent bi ne na loo ko naanee rek loola la mun nga koo jëfandikoo ci loolu sa soxla loo mun a naanee zam-zam rek yonent bi ne loola la waaye ñoom itam ñu sof ci nag quran loo ko jàngee loolu la waaye kaddu boobu moom fu mu ko jële kon mbiri anam yu mel noonu ci la ñuy jaar ba lëntal xolu doomu aadama yi ba ñu jàpp ne mbir mooma noona la waaye nag foog nga jëfandikoo ko ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon boo seetee téere bi doo fekk mukk fuñ la ne bindal xul rek ngay dégg kon nag xul boobu yonent bi jàngale woon lu tee nga yem ci xul boobu ñaanal jangal ab aaya jangal leneen waaye bind boobu ngay bind xaatim boobu ngay defar numéro yooyu ngay dugal tur yooyu nga fay def ak gannaaw ba nga ko defee téere ca safara sa nga koy ruur wala doom ba nga koy dugal wala ron xeer ba nga koy teg pour mu diis ah loolu moom dugg na ci jëfu jàmbakat ndax yonente bi sal allah sallam mosul jëf yooyu mosul def mbir yu mel noonu te day nekk lu xaraam ndaxte mooy soppi kaddu borom bi subhanahu wa taala gannaaw ba nga jëlee benn aaya dugalante ko beneen aaya rëyal sàdd boobu dugal foofu tur diw ndax tur boobu moom ba alquran di wàcc mu foofu kon nag loolu yokk nga ko loolu bokk loon ci wax borom bi subhanahu wa taala wala been ko jël qul huwa allah tambalee fa mu mujjee nga dal di ko been ah loolu nag mooy tahriful kalimi an mawaadihi loolu la borom bi subhanahu wa taala xasee woon ay yahud dal di soppi te ñépp ñooñ bu la neexee nag tuddee ko asraar ñoom ñi koy jëf yépp musiba yooyu la ñuy dal di def boo demoon ba xam lenn ca la ñuy jëf ne nga ragal borom subhanahu wa taala ci biir musiba yooyu nga xam ne ñu ngi koy def nga xam ne yow def lay wóor ne lii moom mooy weddi borom bi subhanahu wa taala ba mu jeex tak ndaxte musiba yu ne dinañ ko ci dal di def ci qur'aanu borom bi subhanahu wa taala kon ki gëm téere bi mooy safaanoo loola foog mu gëm téere bi ne dafa valable fii borom bi subhanahu wa taala waxoon ne fii la looloo tax mu ne wa kutubi wa rusuli munoo gëm téere weddi ka ko indi foog nga gëmaale ka nga xam ne moom la ñu joxoon téere bi te ñépp nag ngay bokk gëm looloo taxoon borom bi junjal ñu ko laa nufarriqu bayna ahdin minhum duñu teqale kenn ci ñoom de ñépp la ñuy bokk gëm waaye dañuy gëm ne nag yemuñu borom bi subhanahu wa taala gënale leneen tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'din mu ne ñooñu ay yonent la waaye gënale naa ñenn ci ñoom yi ñu quran nettali muy ñaar fukk ak juróom borom bi subhanahu wa taala fegg na ko génneewaat ci yeneen juróom mu ne ñu ñii ñooy ulul azmi ñooy boromi pastéef ya muy nuuhu alayhi salaam ibrahim alayhi salaam muusa alayhi salaam isa alayhi salaam muhammadun sallallahu alayhi wa sallam bu tuddee ñii ulul azmi ku ci nekk am na lum la jagleel ku ci ne am na lum la jagleel nuuhu alayhi salaam am na lum ko jagleel ndaxte won nañu dund bu gudd bi nga xam ne moom la dund nga xam ne nekk nag ña nga xam ne ñooñu la doon waar la doon woo alfa sanatin illa xamsina ama junni at yu manqué juróom fukk waxul ne fa la dundam yem de waaye loolu la woote ñu bañ ko wuyu mu alak ña bañoon ña desoon mu desandi ak ñoom continuer di dundaat ak ñoom kon kooku itam am na luñ ko jagleel ndaxte moo tax moom lañu njëkk a tànn yónni ko ngir mu xeex ak bokkaale ibrahima alayhi salaam dal di ñëw borom bi subhanahu wa taala mu ne yaay sama xarit gannaaw bam ko nattoo nattu yi nga xam ne nattu yu gën a kowe la mu ne ko yaay sama xarit kon kooku am na luñ ko jagleel Moussa alayhi salaam dal di ñëw mu ne yow itam nag ñëpp yow rek laa waxee direct yow rek yaa addu nga dégg nga adduwaat matoon Isa alayhi salaam dal di ñëw mu ne itam yow jagleel naa la amoo waajur wu góor te itam yow laa jagleel loolu Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam ñëw mu ne ko jagleel naa la yow itam nag sa woote yow sa yonent amul frontière amul frontière yow lépp la keneen ku la jiitu woon rek imma ma yónni ko ci jamono mooy bu gàtt wala ma yónni ko ci gox mu nekk bu ñu déterminé wala moom ci boppam ma yónni ko ci xeet boo xam ne keneen ku bokkul ci xeet bi bokkul amma yow ba nga ñëwee rek borom bi mu ni lama namoon mooy mondialisation jeex na wa ma arsalnaaka illa kaafa yónnewu ma la lu dul ñépp kon borom bi subhanahu wa taala mu ne ñépp nag mujjantal ba mooy ci keppaaru muhammadu sallallahu alayhi wa sallam mu ne ku lànk rek ma dal di bugal kon ci anam googu la ñuy boole nag gëm ñépp waaye ki nga bokkal jamono nag lañ la royloo dangay gëm ñépp nag waaye ki nga bokkal jamono moom lañ la royloo gannaaw royloo lañu la na ko nag fokk nga fexe xam na mu dundee woon ñu gis ahamiyatu taalim maanaam am solo jàng rawatina nag gëstu xayaatu saxaaba li ñuy tuddee siira maanaam dundub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu mu àndaloon moo tax lépp loo xam ne mooy mbiru néeg ak mbiru wanog ak mbiru biti yépp dinañ ko gëstu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte dañ la koo royloo keneen ku dul moom boo ko gëstoo islaame la déet toogal concerné wu la hada la yanika moo tax ñu ne min husni islami lmari tarku ma la yanika li gën a baax gën a rafet gën a yey ci liy defar diine doomu aadama mooy lu sa yoon nekkul nga maandu ci kon wanoga jàmbur sa yoon nekku ci amma wanoga yonent bi nag sa yoon a ngi ci ndaxte da ngaa war a xam na mu doon def nga dal di jëfee noona loolu moo tax ñu gis loolu dem ci duñ ko tuddee génn topp duñ ko tuddee ñàkk yar waaye dafa war nga dal di ko settantal dal di ko xam wal yawmil axir itam nga dal di gëm itam ne bésu feyoor ba kon loolu lim lay yóbbee mooy dëkkoo fi fekkee dëkkoo fi nag dangay ñibi kon aka rafet boo liggéeyee nga yónnee fa nga jëm waaye fa nga xam ne dëkkoo ko foog nga jóge fa loo def yépp yow yaa ngi def foofu rek ah bés buñ la génnee deel loola fa nga dëkk moom boo demee da nga dem ci ab coono te aduna bii moom nanguwul yóbbaale accompagnement nanguwu ko de àllaaxira moom feret rek accompagnement daal nanguwu ko moom waa ji dee na nañu jël alalam ba ak kiiwam mu yóbbaale ko ndax bu demee neexalaate wala mu def leneen àllaaxira mu ne ma nanguuma de da ngay yóbbante rek da ngay feret rek di liggéey rek di yóbbante di liggéey rek di yóbbante di liggéey rek di yóbbante waaye gannaaw ki ñu koy yóbbante nag yàlla la dañuy am ci moom confiance moom mu ne boo ma yóbbantee benn rek ma classé la fukk ndax moom li mu am du jeex melul ni nga nekk fële Europe di yóbbante fii ak waaye moom di lekk rek di noos boo ñëwee doo gis dara nga décroisé boo ñibee dootoo ñëw fii adduna la kooku melul noonu amma àllaaxira moom déedéet moom ki ngay yóbbul mooy borom bi subhanahu wa taala mu ne loo ma jox rek maa ngi la ko sàmmal dal di ko yokk te laa ma xaalata nag danga ñëw te boo ñëwee ma ne la mu ngi kon loolu dina tax itam nit ki iman dëgg te bés penc nag kenn mënu koo gëm te gëmul almawt mais foog nga gëm dee foog nga gëm ne danga dee danga fi jóge kullu nafsin zaiqatu lmawti qul inna almawta alladi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum thumma turadduuna ila aalimi alghaybi washahaada fayunabbiukum bima kuntum tamal kon borom bi subhanahu wa taala mu ne képp ku mos a dund de nga dee te mu ne dee bi ngay daw fa nga jëm fa lay jóge nga daje ak moom mu delloo la ki nga xam ne moo dëñ kumpa mu fay la lépp loo mos a liggéey mu ne la mu ngi nii bu dee lu baax mu ne la mu ngi bu dee safaan ba mu ne la mu ngi bu dee ku baax la wa mu ne la jéggal naa la yàlla nañu ci borom bi subhanahu wa taala boole kon dee boobu itam boo ko gëmee ba pare da nga gëmaale li ñuy tuddee alxayaatul barzaxiya dana gëm ne am na dund bu am moom la ñuy tuddee mbugalu bàmmeel mbugalu bàmmeel am na xiwalu bàmmeel am na kon loolu itam nit ki bu koy sóoraale day tax mu waajal lii nga xam ne mooy bis penc kooku la ñuy tuddee alxayatul barzaxiya bu ko rombee nag nga xam ne dekkiwaat am na nag mu wóor ko ne li ñuy tuddee alxisaab am na mooy ñu nattale lépp loo jëfoon ñu dal di la ko fay boo rombee xisaab mu wóor la ne fa nga jëm mooy almisaan foog ñu dal di peese nag mbir yi lu gën a diis rek nag ñu ne fala waa ji jëm bu rombee foofu nga xam ne mooy misaan mu wóor ko ne desaat na beneen mbir bi nga xam ne mooy assiraat siraat boobu nga xam ne borom bi subhanahu wa taala mu ne gisuma fooy jaar be doo ci jaar siraat wa in minkum illa waariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji alladina attaqaw wa nadaru aljalimina fiha jisiya borom bi subhanahu wa taala loolu la wax wa in minkum amul kenn ci yéen illa lu dul rek waariduha dina jaar siraat bi dem te siraat nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melale na ko mu ne moo gën a sew ab kawar te du dal day yëngu dafa ñaw te dafa am luy pakastal dafa am loo xam ne luy lonk te fa mu tegu nag pont boobu rek nag la ñuy jéggi dem aljanna te ron nga mooy jahannam ah loolu nag doomu aadama bu koy sóoraale lépp luy tax mu jéggi dina sonn ngir dal di def loolu lii tax jéggi nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxal nañu ko de mu ne mooy topp gannaaw faqat leneen loo def lu dul loolu mu ne doo jàll ndaxte masamba ak ma demba ki nga yaakaar day nërmalu ni ngay nërmalu dangay ñëw taxaw fekk moom itam mu taxaw ñu ne la jaaral ni muy jaare noonu ngay jaare ku mu mun a doon nag borom bi subhanahu wa taala mu ne def fay jaar kon nag gannaaw def fay jaar te yonent bi mu ne ku ma topp mooy kii texe ah kon gaawal nag nekk ci gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndaxte mu ne keroog dinaa jàppale ñaan ragaloon yàlla ma dal di nërmal ña nga xam ne yeneen lañ doon def kon yal nañu borom bi baaxee ci ragal borom bi subhanahu wa taala mu ne yooyu yëpp nag buñ ko rombee léegi nag benn ci ñaan bi imma nga jaar yamin wala nga jaar shimal mu ne siraat boobu moom moo ci sóoboo imma rek nga jaar droite wala nga jaar gauche ku jaar droite texe na ilal janna ku jaar gauche texe wa dina ilal jahannam moo tax nit ki dina ko xam balaa muy yegg ci situation boobu ndax mu ngi koy xamee ca bañ koy jox téere jëf ya wala xamee ne yii yépp amagul maanaam ñépp ndekki nañu téere jëf yaa ngi jëm ci ku ne ku ko nangoo ak ndey jooram rek moom wóor na ko ne léegi lépp hayyin lépp sotti na moo tax dootul tiit dootul jàq dootul def dara looloo tax ca dee ba ca dee ba borom bi subhanahu wa taala mu ne moom foofu lay tàggoo ak jàqare ndaxte tatanazzalu alayhim almalaika alla taxaafu wala tahzanu ay malaaka ñooy dal di ñëw ne ah yow mii bur ragal de bur am tiis jeex na yow yaa ngi jëm ci sa xarit mooy borom bi subhanahu wa taala kon loolu moo tax kooku dina fekk du tàggoog sagoom abadan amma keneen ku dul moom nag day tàggoog sagoom loolu lañu borom bi subhanahu wa taala junjaloon ci demuwaay ba keroog ci siraat mu ne ba ñu sóoboo dem be làq tuuti rek ñi nga xam ne ñoom ay naafeq lañu woon dañ doon xor-xoral rek lu toll noonu lañu amoon seen énergie dal di jeex leer ga dal di fay te ci lëndëm la lëndëm nag ci luy yëngu am ay pakk am yuy lonk am ay pax te boo daanoo yaa ngi daanu ci biir safara ah ñemeetuñoo jéggi tànk dal di taxaw ñeneen ñi moom nga xam ne ñu baax nañu jàll nañu ci seenu leer ñu dal di leen woo ñu ne leen unzuruna naqtabis min nurikum waaye geesu leen waaye leer gi ñëw ñu mun nañu itam ñëw dab si leen gaay leen ah du noonu kat leer gii du noonu de farji'u waraakum faltamisu nuuraa ñu ne dellu leen seen gannaaw jëli leer leer ga fële lañ koy jëlee de du fii ñoom ñu yaakaar ne dañuy dellu siraat rek fa ñu tàmbale woon jël ay làmp ñëw ndeke du noonu ndeke dellu leen seen gannaaw mooy aduna te borom bi subhanahu wa taala mu ne aduna moom jeex na gannaaw ba ñu geesoo rek fa duriba baynahum bi suurin ñu dal di def ab miir ci seen diggante séenatuñu leen faf ñu gën a nekkaat ci lëndëm borom bi subhanahu wa taala mu ne miir booba nag am na buntu la féeteeg ñu baax ña jàmm dong moo fa ne waaye ña féeteeg ñu bon ña mu ne musiba fa ne xanaa buñ doon xaw a nelal rek ngir ñu mun koo xaw a dégg rek mooy climatiseur la féeteeg biir néeg ba daal moom jàmm la waaye boo demee ca gannaaw ba foofu ab fitna nga fay dal di gis xaw a nirale rek waaye du benn ñu dal di yuuxuwaat ñu ne leen alam nakun ma akum ah ñu dëkkandoon aduna bokkoon parcelle di daje ca jàkka de waaw nii nga ñuy jàmboo nag ah déet ñun ñoo fa bokkoon nekk kat waaye bokkuñu woon pas-pas de bokkuñu woon jëf de yéen ñii irtattu te ngeen dellu woon gannaaw seytaane nax leen aduna nax leen ngeen topp yooya ñun ñuy farlu ngeen di ñu saboote nag cam ak seen sikkiñ yi ak seen bubbu yu gàtt yi ñoo soof naam waaye ñooñu daa amoon lu taxoon ñu jëf loolu ndaxte sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ doon xeñtu moo tax borom bi subhanahu wa taala xaraamaloon ko dëppi ñu ngi nekk ci aduna mu ne bu leen joxante ay turub xeebel bu leen joxante ay turub xeebel gannaaw yooyu amoon na nag loolu mooy peyoor ba yal nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal te mu baaxee ñu ñu bokk ca borom leer ya mu ne bi ci mujj mooy wa tuminu bilqadri xayrihi wa shar mu ne foog nag nga gëm ndogalu borom bi subhanahu wa taala moo xam bi lay bégal la wala bi lay merloo wala bi lay jox tiis fokk rek nga dal di ko gëm dal di ko nangu loolu moo tax yonent bi sal allah sallam mu ne su fekkee ne nattub wàññeeku la nattub wàññeeku ndaxte borom bi subhana wa taala mu ne dinaa leen xupp de dinaa leen xuppee tiital leen dinaa leen xuppee ñàkk sécurité dinaa leen xuppee wàññi seen alal dinaa leen xup xuppee wàññi seen bakkan waaye lu ci am rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne na nga wax ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun moo tax foo dégg ne diw faatu na rek loolu ngay dal di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko jàngalee am benn soxna soo xam ne mooy ummu salama ba borom këram génnee aduna mu ne man keroog laa soog a dégg waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon naa lim ma jàngal inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni min musibati borom bi subhanahu wa taala waaye dimbale ma woyofalal ma sama musiba bi sama fitna bi sama borom kër bi dem waaye wëttal ma ku ko gën mu ne waaye boobu man ci sama xel gisuma ci saxaaba yi ku ma gënal abu salama gisuma ko waaye nag ma tënku ci waxum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te gëm ko itam nag dal di ñaan ñaan nga mu ne waaye ba ma demee ba sama idda jeex rek yonent bi dal di ñëw labat ma ne laa sàkkadee kii moo gën abu salama kon borom bi subhanahu wa taala hakada looloo tax mu xaraamal yuuxu caali daanu fokk ay misoo sumbi ay mbaxana xotti ay yére naan torox naa def naa nangam nangam borom bi subhanahu wa taala mu ne jéppi naa la ndaxte dama la doon natt waaye gis naa ne yow moom jàngaloo ci natt boobu kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala nattoo lu tolloog suñu kattan te bu ñu ci nattoo itam yal nañu may ñu mun a jàll bokk ca ña ñuy gërëm اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام على والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi ci pas-pas borom bi baaxee nañu ñu dajewaat suñu dars aqida muy leeral pas-pas lii tax ñu nangu jëf mbaa ñu màbb ko nit ki pas-pasam bu sellee te leer jëf jañu ca teg mu nekk jëf ju ñu nammu pas-pas boobu su amee nu mu mel jëf ju ca tegu borom bi subhanahu wa taala mu ne du ko nangu ba pas-pas bi jaar yoon moo tax borom xam-xam yi dëppoo ne li gën a mag gën a am solo nekk njëlbeen li borom bi subhanahu wa taala digle mooy al imaanu billah mooy nañu gëm borom bi subhanahu wa taala li gën a ñaaw gën a yées gën a bon borom bi tere ko mooy ashirku billah mooy bokkaale ak borom bi subhanahu wa taala demoon nañu nag bi ñu indil ñu juróom benni ponkuy imaan mu ne bu ci manqué nag borom bi subhanahu wa taala du nangul jaam boobu ab jëf foog mu gëm borom bi subhanahu wa taala gëm amuk malaaka gëm téere yi gëm yonent yi gëm bés penc gëm ndogal ba koy bégal ak ba koy tiisloo suñu bind tey nag mooy tegtalu ponk yooyu moo tax mu nañu wa dalilu ala hadihi al arkaani sit tegtal ci juróom benni ponk yooyu yi tax jaam bi nekk jullit nekk ku gëm te ku la gën a dëgër ca ngëm googa moo la gën fa borom ba subhanahu wa taala moo tax borom bi won ñu ngëm googu mooy lii tax mu bëgg jaam sopp jaam jàppale ko inna akramakum inda allahi atqaakum ki leen gën ca borom ba subhanahu wa taala mooy ki leen gën a ragal borom bi subhanahu wa taala mooy ki dajale ponk yii nga xam ne mooy ponk iman fonk yooyu mooy islaam bu nëbbu fonkuy islam mooy islam bu feeñ ni mu leere woon ci hadis bi ñu tàmbalee woon mooy hadis jibril alayhi salaam kon lay nekk ci xolu doomu aadama di ko jëfloo di ko bëggloo di ko bañloo di ko bégloo di ko merloo bu fekkee ne loolu daa dëppoo ak ndigalu borom bi subhanahu wa taala kooku la ñuy tuddee al mumin mooy ki nga xam ne gëm na te ngëm googu nag borom bi subhanahu wa taala léeg-léeg mu dàq ko ci ñu bari mas naa toog gëñ ñetti yoon ne wallahi laa yumin wallahi laa yumin wallahi laa yumin sahabatul kiram ridwanullahi alayhim ne ko kan mooy kooku mu ne alladi laa yaamanu jaaruhu bawaiqa mu ne koo xam ne say dëkkandoo seen xol dalul ci yow mu ne loo mun a def ngëmu mu ne ngëm amul kon dàq na foofu ngëm ci koo xam ne jullit yamu dëkkal seen xol dalul ci moom ngir làmmiñam bëtam noppam loxoom ay tànkam kenn muccul ci yonent bi géñ ne wallahi laa yumin kon kooku doonte wax na ponk yi waaye nekkuñu fa bu ñu fa nekkoon rek mu am iman dàq na ko ci bépp sàcckat ak bépp njaalokat ak bépp kuy jël loo xam ne day tax sa xel dal di nëx dal di ñinu laa yazni zani hiina yazni wa huwa mumin wala yasriqu saariqu hiina yasriq wa huwa mumin mu ne kon ay sadditam bu ñu nam waaye gannaaw ba ngëm génnee ba muy jël la muy jël mu ne ngëm moo fa nekkul waaye bu fa nekkoon du ko def mu ne mandikat bi ba muy jël lii tax mu mandi lu ñuy naan lu ñuy xeñcu lu ñuy lob lu ñuy pikiiru mu ne loo ci def rek ba nga koy def mu ne ngëm a dem waaye bu fa ngëm desoon doo ko def kon ngëm mooy li ci biir xolub doomu aadama bi di ko def loo di ko dal di tere kon ngëm googu nag lañu tuddaloon ay ponkam juróom benn la yi mu tudd bu ci benn manqué ngëm amul mu ne ponk yooyu nag bu ci ne am na tegtal imma ci qur'anul karim wa imma ci sunna yonent bi sal allahu alayhi wa sallam mu ne ñu tegtal bu njëkk bi mooy qur'anul karim borom bi subhanahu wa taala mu ñuy wax ne laysa albirra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين mu ne tegtal bu njëkk bi yóbbaale na yu baree bari yóbbaale na juróom yi borom bi subhanahu wa taala mu ne njub nekkul laysa albirra njub nekkul أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بوغين دي جبلو بنكو باسو بمعنى جلي julli léeg-léeg mu nekk dalilu iman waaye bu fekkee ne nag julli boobu mu ngi lay tere lu ñaaw kon julli boobu mun na nekk dalilu iman donte am na xadis bu rot si waaye borom xam-xam yi ne wérut mooy ida raaytum rajula yactaadu lmasjida fashhadu lahu biliman maana boo gisee ku yittewoo ay jàkka di dem di ñëw fu ñu nodd mu dem ñëw seedeel leen ko ne ku gëm la waaye hadis bi topp nañ ko ñu gis ne am na ay sikk donte nag ci ngëm la bokk ci ngëm bi nga xam ne mooy libir ndaxte daa bokk ci ponk yi islaam mooy julli waaye loolu nag mooy azahir ci li nga xam ne yow liñ la atteloo mooy li feeñ mooy bu faatoo dinañ ko jullee waaye ndax dinañ gëm ne nag danañ jàpp ne nag haada muminun loolu mooy li nga xam ne mooy li faddu moo tax borom bi ne mbaax tënkuñu ko ci jublu penku ak jublu sowu maanaa julli ndaxte ñun bu ñuy julli dañuy jublu penku boo demee ba romb kaaba bi booru penku ñoom bu ñuy jub julli dañuy jublu sowu mu ne kon jublu ci mbir moomu dong dong dong rek nga jàpp ne mooy imaan mu ne déet imaan romb na fa yemu fa mu ne nag walakin waaye nag lan mooy imaan imaan boobu mu ne mooy njub ak baa mooy lan man amana billah mooy këpp ku gëm yàlla wal yawmi al axir mu gëm bés pénc wal malaika mu gëm malaaka yi wal kitaab mu gëm mboole seen lu ñuy tuddee téere wan nabiyin ak yonent yépp yi nga xam ne tudd nañu leen ci quran moo xam tudd nañ seen téere wala tudduñu ko mu ne juróom yii ku mu nekk ci sa biir xol fa anta muminun dina fekk yow mii ku gëm la ñu dellu si waat ci benn bi man amana billah ku gëm yàlla ku gëm yàlla mooy dangay jiital waxu yàlla mooy dangay mer ngir yàlla mooy dangay bég ngir yàlla loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junjoon mu ne am na ñetti mbir daal ku mu nekk ci xolam am nga cafkak iman mu ne fekkoon ne iman dañ koy lekk ni kon yëg nga iman lan lay saf bu jiitu bi mu ne an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma yàlla ak yonentam gënal la ludul yàlla ak yonentam yàlla ne na waaya kon iman ba des na yonent bi ne na waaye kon iman ba des na waaye feeg ñu ne yàlla ne na nga ne samaan wa taa looloo war a nekk dégg naa jël naa iman baa nga yonent bi ne na samaan wa taa dégg na nangu na kon iman baa nga moo tax mu ne ñaan ñi gënal la lu dul ñoom an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma loolu bu la gënalee mu ne ah yow de soobu nga ci yoonu iman ñaareel ba an yuhibba al mar la yuhibbuhu illa lillah nga gis ab doomu aadama nga sopp ko te dara taxul lu dul ngir yàlla ndaxte dafa tënku ci ngir yàlla nga soppee ko rek ak mbaaxam ak toppam téere borom bi subhanahu wa taala ak toppam sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu dal di feeñ ci colinam ak cib doxalinam nga ne ko sopp naa la ngir yàlla looloo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo soppee nit ngir yàlla yëgal ko ko waxal ko ko nga ne ko sopp naa la ngir yàlla kooku itam ne ko yàlla na la yàlla sopp nim ma soppee mu ne loolu bu amee rek iman dal dina am mu ne ñetteel ba an yakraha an yauuda ila alkufri bada id anqadahu allahu min kama yakrahu an yuqdafa fi nnar mu ne ñetteel bi nga bañ a delluwaat ci kéeféer bi maanaa ñaawtif du génn diine de wal iyadu billah maanaa ñaawtif nga bañ a delluwaat ci ñaawtif moo xam sàcc la moo xam njaalo la moo xam màndi la moo xam fen la moo xam jëw la moo xam wor la mu ne nga bañ a delluwaat ci ñaawtif ni ngay bañee buñ la buggee sànni ci safara mu ne ni ngay bañee ni ngay jafandoo ni ngay màttee ni ngay wokkee buñ la buggoon a sànni ci safara mu ne noonu nga bañee noonu def lu ñaaw mu ne ñett yi bu ñu dajee ci xolub doomu aadama kooku xam na li iman bi saf kon mooy maana man amana billah kon borom bi subhanahu wa taala ku ko gëm rek den ko tudd lu bari bari den ko bëgg lu bari bari te li ko bëgg nag mooy raw moo tax mu ne ñu wa min annas man yattaxidu min duni illahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladina amanu ashaddu hubban lillah mu ne am na ci doomu aadama yuy tànn leneen mun na nekk nit mun na nekk objet mun na nekk lu mu mun a doon ñu bëgg ko ni ñuy bëggee yàlla kon kooku bëgg na mbir male waaye bëgg na yàlla mu ne waaye dafa yemale bëgg-bëgg bi mu bëgg ko ni muy bëggee yàlla mu ne am na ci doomu aadama yi ñoo xam ne noonu la ñu mel mu ne waaye nag ña gëm foo leen fekk rek ñoom yàlla la ñuy gën a bëgg lu ne day bëgg yàlla ba pare toftal ci leneen moo tax bu yàlla àddoo leneen àddu mu wuute rek ñu ngi ci li yàlla wax bu yonent bi àddoo keneen àddu mu wuute rek ñu ngi ci li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dal di wax kon loolu mooy gëm borom bi subhanahu wa taala ngëm boobu moo lay dimbale nag nga jiital ñaar ñooñu wal yawmi al axir ak bés penc ki laajoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bés penc kañala mu waxal ko lan mooy gëm bés ba mu ne ko mata saa mu ne ko maada aadatta laha bés penc kañ la mu ne loo ko waajale kon ku ne ku gëm bés penc waajal ko laa mahalata waaye gëm naa bés penc de duma ko waajal ah déedéet bu tabaski jub see xoolal ni ñu koy waajale rek ndaxte dañuy gëm ne bés bi day ñëw te wóoruñu mu fekk ñu waaye duñu fekk waaye am nañu yaqiinan ne haada al yawmu sa yaatiini bés bi foog mu ñëw dina ma fekk wala du ma fekk loolu moom wóoruma dem wuuti looy sol wuuti looy solal sa njoboot wuuti ay xar wuuti looy toog wuuti lépp dal di ko waajal toog lan moo tax def laa wóor ne day ñëw waaw bés penc nag bu la wóoree woon noonu laa maxaalata la waajal kon nag bañ a waajal bés penc boobu day wone ne ngëm ba moo dal di des moo tax mu ne wal yawmi al axir wal malaika mu ne ak malaaka yi bu la wóoroon ne foo mun a toll yaa ngi ànd ak ñaari malaaka yu lay seede di jël li ngay wax kon bola ngay wax nga seetaat ko bola ngay wax da ngay seetaat li ngay wax bola ñu koy bind bola ngay laal da ngay seetaat li ngay laal bola ñu koy bind bola ngay seede da nga settantal bola ngay jëf da nga xoolaat bu baax a baax loolu gëm ay malaaka loolu lay dal di jëriñ ci doomu aadama bi te mu wóor la foo ne ñu nga fa dal di ànd ak yow moo taxoon borom bi subhanahu wa taala dal di ñu ko leeralal bu baax a baax wa inna alaykum la haafidina kiraman katibina yaalamuuna ma na leen wóor ne ànd na ak yéen ñoo xam ne ñu tedd lañu ñu maandu lañu ñu sell lañu de bind li ngeen di def te xam nañu xam nañu li ngeen di def te fu ñu toll ñu ngi koy dal di bind moo tax ku nekk am na raqib atid ñoo xam ne dinañ taxaw ci borom bi subhanahu wa taala ñu ne lii day nga ñu santoon mu ngóob yaag saab jaam nag yéen a xam yéen a ngóob wal kitaab gëmu qur'aanul karim mooy dellu ci alkitab fii mooy mboole seen téere bu borom bi subhanahu wa taala wàccee woon da nga koy gëm jumlatan ci gëm ne téere bi mos naa wàcc rek amma bi nga méngol jamono nag tafsilan waratoo def lu dul da nga koo natt ca téere boobu moo tax mu ne wal kitab moo tax borom bi subhanahu wa taala ba mu xamee suñu jëf ni mu wuutee mu dal di ñu woo afa tuminuuna bi ba'di alkitab wa takfuruuna bi ba'd waaw yéen da ngeen bugg a gëm lenn ci téere bi rek ngeen weddi leneen la da ngeen bugg a gëm lenn ci biir téere bi ngeen weddi leneen la ñu ne qul huwa allah ku ko jàng-jàng nga tulutul qur'an boo xaajoon qur'an ñetti xaaj boo jàngee qul huwa allah jàng nga ñetteelu xaaj ba waaye boo ko jàngee téeméer yoon itam nag ñetteelu xaaj dong la ndaxte qur'an ñetti xaaj la am benn bi mooy aqaid lu jëm ci ay pas-pas sellal borom bi subhanahu wa taala wéetal ko beneen bi ci tegu mooy al ahkam mooy atte yi beneen bi ci tegu mooy al qisas mooy netti li ñu netti li ci alquran mooy ñetti xaaj yooyu kon boo jàngee qul huwallah kooku pas-pas dong la borom bi subhanahu wa taala boppam dong la fa wax moo tax yonent bi ne sulusul quran waaye boo ko jàngee téeméer yoon itam benn sulus rek nga jàng ndaxte jàngagoo waxagoo ahkaam yi waxagoo qisas yi waaye gëm nga nag gannaaw loolu borom bi subhana wa taala moo ko wax kon nit bu faatoo bu ma ko jàngee xej na borom bi subhana wa taala yërëm ko waaye innama alxamru walmaysiru wal antaabu wal azlaamu ila axiri l aaya waaw loolu moom ku ko wax borom du borom bi subhana wa taala waaye loolu itam nag lànk nga rek nga ne PMI bi moom foog ma bokk ci rek ndaxte buntub wërsëg la buntub suqali la nangam ak nangam waaye gëm nga qul wallaa moom da nga ko ñaanalee ab néew ñu jéggal ko waaye innama alxamru walmaysir wal ansab la awal ansab moom moom nanguwuloo ko ndaxte borom bi mu ne mbiru seytaane la sobe la lu bon la lu yées la lu xaraam la loolu moo tax jàngal ku faatu quran donte ñu ngi koy rafetlu te amaluñ ko tegtal waaye danger la de bu ñu settantaloon fitna la musiba la ndaxte lan la mooy li ñu tudde iqamatul hujja mooy leeralu lay deena rob nañu ko jox nañu ko téere jëfam xam na luñ koy atte nga firi quran bi di jàng nag borom bi ne ko dëgnul li nga waroon a dundee nga nga lànk ñu ngi la koy fàttali dégg ko bu baax a baax yaa ngi koy dégg de nii nga meloon wala meloo woon nii loolu moo tax ñuy nettali ci benn nettali ñu ne am ku génn aduna ñu toog di ko jàngal alquran benn maga nga fa toog bem yàgg rek jóg saaga wax lu ñaaw mu ne man daal bu ma génnee aduna ku ma jàngal quran ma nangamtaan ñu ne ko lan moo tax mu ne yàlla fàtte woon na yu ñaaw yi fàttali ngeen ko da gis nga yu ñaaw yim doon def yépp tudd ngeen ko fi nag yokkal ngeen ko musiba kon loolooy quranul karim gis nga quran balaa ñu la koy jàngal na nga ko jàng boo ko jàngee itam balaa mu lay jëriñ na nga ko appliqué lii lu xaraam la ba ko lii lu dagan la nekk ci lii lu ñu sopp la góorgóorlu ci buñ ci am moo tax borom bi subhanahu wa taala ba mu waxee yiw yi yépp mu ne fal yatanafasil mutanafisun waaw yéen raw ñii rawalante nañu rawalante ci yi mu ne ñu fa firru ila allah fox leen daw jëm ca borom ba subhanahu wa taala waaw borom bi foo koy fekk quran la wax nañu jëm quran la wax nañu jëm kon mu ne ñu itam saabiqu ila magfiratin min rabbikum njëkkalante leen laay tax borom bi subhanahu wa taala dal di leen jéggal yonent bi ne gis ngeen quran bii ku koy jàng te manoo ko maanaam nga sonn ci lool ijj dal di boolewaat jéemaat di jéem rek ndaxte jafe na ci yow te bëgg nga koo man mu ne gis nga kooku lahu ajran mu ne borom subhana wa taala ñaari yool la koy fay ñaari yool mu ne benn bi mooy yoolu jëmm jàng quran bi ñaareel bi mooy yoolu góorgóor ñaari yool kon loolu li ko am mooy alquranul karim moo tax abdullahi ibnu masudin radiallahu anhu doon nañu wax ne waaye góorgóorlu leen di xool téere borom bi subhanahu wa taala góorgóorlu leen di ubbi di xool téere borom bi subhanahu wa taala yonent bi ne bépp xarfu boo jàng ci téere borom bi subhanahu wa taala ñu bindal la ci ay yool du ma la wax ne alif laa miim xarf du ma la ko wax ne waaye alif bi xarfu la laam bi xarfu la miim bi xarfu la benn boo ci jàng am nga fukkam ci ay yoon li ko am nag loolu mooy qur'anul karim dong waaye nag dinañu fàttali waxu umar ibnul xataab radiallahu anhu dafa toog woo saxaabatul kiram mu ne leen dama bëgg ñu xelaat bind waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def ñu koo tere woon ngir mu jaxaso qur'an jóge na fi qur'an leer na léegi amatul lenn lu ci mun a dugg amatul lenn luñ ci mun a wàññi ba muy jaxasoo léegi dama bëgg ñu bind sunna saxaaba yi dal di ko rafetlu mu ne waaw dinaa ci xelaat ñu toog ay fan mu ñëwaat mu ne leen lama xelaatoon banaa diggalatuma kenn bindatuma ñu ne ko umar lan moo waral loolu mu ne damaa xelaat ay nit yu bindoon ay téere téere yooyu gënal leen téere borom bi subhanahu wa taala ñu dal di ko bàyyi te ni ñu soppee yonant bi ragal naa bu ñu bindee sunnaam rek ñu jëm ca fàtte téere ba subhanahu wa taala waaw li umar ibnul xataab ragaloon radiallahu anhu tey moo am ci jamono am na koo xam ne téere waayam moom lay nafar di jàng xattan fatiha man am na koo xam ne téere boobu ferul lijj waaye fan force bu duggee oto dal di ko ubbi di génnee paas yi di xool di génne te ferul ijj te téere borom bi subhanahu wa taala mu ne ko fay ñàkk bàyyi yoonam nekku ci moo taxoon yonent bi sal allah sallam kalaame leen ci borom bi subhanahu wa taala ittaxadu hada alqurani mahjura mu ne quran bii jël nañ ko sànni ko fale toog nëpp nooy dundee fexe nga ba xam ko fas yaay daw ca france jour ya fay jouir bubb ya ñuy sol ñi leen di arbitré ñépp fexe nga ba xam ko ku nekk boo xooloon ci terrain bi lu xew nga ne nangam moo xew waaw téere borom bi subhanahu wa taala nag loo ci jëf dara téere borom bi moom dara waaye ni ngay dundee moom fooy jaar dugg génn mun nga jël sa avion dem bi fii ba hong kong lijjanti ak chinois boo xam ne déggantewu leen waaye da ngeen liyaar def lu ne ba ngeen lijjanti bi ay milliards dal di ñëw teg waaye téere borom bi subhanahu wa taala ila al ana ila al aada ndaxte loolu li muy wone mooy jéemu ko waaye doomu aadama bi lu mu jéem moo tax ñu ne bu jéemoon sax takk benn etel bi àgg asamaan bu ko borom bi subhanahu wa taala mayee dund la fa ala loolu mooy xelaatu doomu aadama bu mébétoon mu ne damay takk etel dem ci asamaan borom bi subhanahu wa taala may ko dund rek la fa ala dana ko daal di def kon loolu moo ñuy won ne est ce que gëm nañ alquran loolu lu ñuy war a seetaat ku nekk da koy laaj boppam waaw man ndax gëm naa alquranul karim bu fekkee ne man nga ko fal jawaabu saxiix man nga quran te yaa ngi koy appliqué fal jawaabu saxiix Dan- dana fekk li nga tontu ne ne gëm nga ko dëgg la su fekkee ne nag négatif la maanaam manoo quran boo ne gëm naa ko du dëgg déedéet loolu dina fekk des na ndaxte li nga gëm moom man nga ko boole seen li nga gëm mu jaral la dana fekk loolu moom man nga ko kon nañu settantalaat quranul karim waaw lan mooy kadu bi borom bi subhanahu wa taala di jox ñaman quran yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam leeral na ko mu ne ku jàngo quran be tari ko jëfee ko mu ne bu ñu demee bés pénc atte jaam yi dina am fukki nit ci xeetam yu yeeyoo safara am na xeetam yu yeeyoo safara borom bi subhanahu wa taala woo ko ne ko yow day tari woon nga quran te jëfee woon nga ko gis nga sa xeet bii ñi ñépp yeeyoo nañu safara tànn ci fukk ma jéggal leen loolu mooy kado biñ ko jox tànn ci fukk mu dem tànnal boppam fukk borom bi subhana taala ñi jéggal naa leen waaw kooku nga xam ne nag jéggalee nañu fukk ci moom waaw moom nag ban xiwal lañ koy jox kon loolu mooy alquranul karim kon quran fokk ñu jox ko suñu yitte waaye foog mu jaral ñu nag jox ko suñu yitte mu jaral ñu jaral boobu mooy waaye itam nag sonnal keneen mokkal quranul karim tey ñi bokk jàkka ji ku nekk rek bu sasoon boppam xëj na man téere bi raw na ma munatuma koo tari waaye sonn naa kon nu may def ba am yool waaye naa fexe keneen tari téere bi weer wu dee rek joxel deux mille cinq cent rek ñiy julli ci jàkka bi ñaari sàppe yu njëkk yi saxutuma la ak leneen ku nekk deux mille cinq cent waaye kooku doy na dépasse doomu aadama buy toog ci jàkka ji di jàngal doomu jullit yi ngir yàlla waaye yow nag deux mille cinq cent dugal la aljanna ndaxte bu jàngee téere bi ku mu jàngal kooku ku mu jàngal kooku ku mu jàngal ila qiyaami saa yool bu mu am borom bi ne bindal leen ki ko sosoon yool bu toll noonu yool bu mu am ñu ne nañu bindal kooku yool bu toll noonu kon yaakaar naa projet yooyu buñ ko xelaatoon du des ci doomu jullit yi munul qur'anul karim abadan waaye bés bu nekk na nga lekk ay junni yoo xam ne boo moytul ñu xisaab la ci yoon yoo xam ne xamuloo nu mu def moo tax seytaane ak noon bi boo jàppoon ci sa loxob doom yóbbul ko ab sëriñ bu toog di jàngale bu la nee téeméer nga ne ko waay téeméer ci quran ah en tout cas ay douze mille ay treize mille ay vingt mille ay vingt cinq mille ngay dal di fay ci li nga gëm ngay dal di fay ci école yi nga gëm loolu nga fay dal di fay waaye boo ñëwoon kooku toog ne la ab téeméer wala ab mille franc rek nga ne ah loolu de moom dafa bari man kay def maa tànqal ca kër ga damaa bëgg mu toog fi rek hada huwa imanuka bi kitabillah loolu loolu mooy sa gëm ci téere borom bi subhanahu wa taala kon téere boobu la yonent bi junjoon ne ka gën mooy ka ko man xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki xam lu qur'anul karim ba pare di ko xamle kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax naam wannabiyin mu ne ñu ak yonent yi qur'an munoo koo gëm te gëmuloo ki ñu joxoon qur'anul karim qur'an munoo koo gëm te gëmuloo ki ñu joxoon qur'anul karim moo tax borom bi subhanahu wa taala dal di ñu ko leeralal ci anam yu bari dal di ñu wax ne quran bii kitaabun majid téere la bu tedd mu dal di ñu wax ne quran bii tazkira luy fàttali la mu dal di ñu wax quran bii shifa lima fi sudur day faj lépp loo xam ne mooy jàngaro xol quran bii da koy dal di faj kon yooyu yépp boo buggee jàmm da ngay delluwaat ci alquran karim di ko jàng di ko settantal borom bi dal di la aar moo taxoon mu dal di ñu wax ne boo jàngee alquran bii dinaa def ab kiiraay sa diggante ak ña gëmul yàlla kon loolu jàngu quran moo koy maye te boo muccee ci yéeféer bi mucc ci seytaane bi idinillah kooku day dal di mucc moo taxoon mu nañu boo jàngee quran ma def sa diggante ak ña gëmul yàlla ak baaraam seenu pexe seenu mbir dootul mun a yegg ci yow kon aaya bi mooy dalilu juróom yooyu mu nañu wa dalilul qadri قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر من تكتل ندغل موي بروم سبحانه وتعالى من من دي لوني دما كو ساك تي دوغال لوني دما كو ساك تي دوغال تي دوغال بوبو لا نيو بولé ñaar القضاء والقدر alqadar mooy ba nga ba ñu ko bindee ñu ne bésub sangam heurub sangam minitub sangam segonub sangam nangam dina xew loolu mooy li ñuy tuddee alqadaru bu ñu toogee ba loolu xew na ñu tuddee ko alqada léegi dal dinañ ko exécuté dal dinañ ko jeexal loolu la yonent bi sal allah sallam dal doon tënk ci sàkkinub doomu aadama nu muy mel ci biirub yaayam mu dal di ñu won ñe mu ngi tàmbalee mat ci téeméeri fan ak ñaar fukk muy lu tolloog ñeenti weer mu ne loolu bu sosoo fekk lépp junju nañ ko na muy mel borom bi subhanahu wa taala dal di yónni ab malaaka mu ne demal ma ca kële na nga bind ab dundam na ko bind na nga bind ab wërsëgam na nga bind ak lépp lu koy dab waaye na nga bind nag kuy texe la wala kuy texe wadi kuy texe wala kuy texe wadi kon borom bi subhanahu wa taala jiital na dogalu doomu aadama balaa muy ñëw ci aduna moo taxoon yonentu bi salallahu alayhi wa sallam mu ne ñu gëm leen borom bi subhanahu wa taala wa ahsinu talab mu ne na ngeen rafetal wutin bi ndaxte da ngay jóg sa wërsëg topp la di daw pour mu dab la kon yonentu bi ne rafetalal wutin bi mu ne fekkoon ne da ngeen wàkkerlu ci borom bi subhanahu wa taala ni ngeen war a wàkkerloo ci borom bi subhanahu wa taala dina leen wërsëgal ni muy wërsëgalee picc mu ne picc bu xëyee amul dara bu génnee biir bi dara nekku ci waaye buy dellu si biir baa ngi fees dell mu ne moo taxoon mu ne ñu taxdu ximaasan wa taruuhu bitaanan taxdu ximaasan wataruuhu bidaanan mu ne picc boobu bu xëyee dara du nekk ci biir bi waaye buy dellu si biir bi dal di fees dell doomu aadama itam mu ne ndogal boobu na ko gëm mooy lan lan yusiibana illa ma kataba allahu lana da ngay gëm ne amul lu ma mun a dab ci lu baax ak lu ñaaw lu dul li borom bi subhanahu wa taala dogaloon ci man gëm boobu ak xadis bi yonent bi sal allah sallam wone woon ne doomu aadama bi na yittewoo jëf ak ngëm ndaxte ndogalu borom bi subhanahu wa taala sotti na dogalu borom bi subhanahu wa taala sotti na moo tax ci jeexantalu xadis bi mu ne ñu rufi al qalamu wa jaffati suhufu mu ne xaliba ba ñu doon bindee ndogale ya pare nañu yëkkati nañ ko mu ne fooy yeñu ko bindee woon fendi nañu ci benn riwaaya mu ne wa tuyat lem nañu leen denc ci al arsh ca borom ba subhanahu wa taala kon jaam bi bu xamee loolu na góorgóorlu di ñaan borom bi subhanahu wa taala mujj gu rafet di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu woyo falal ko nattu yi nga xam ne mooy ndogalu borom bi subhanahu wa taala nangu ndogal nag du wax la ngay wax ba sonn dal di ñëw toog déedéet moo tax ñu ne innama sabru fi sadmatil uuda mu ne muñ mu nga ca njëlbeenu mbir ma muñ waaye dara dab doomu aadama mu yuuxu def lu ne te manu ci dara mu taxaw ne muñ naa aha déedéet muñ kat mu nga ca njëlbeenu mbir ma doomu aadama nag borom bi subhanahu wa taala nattoo na ko ay mbir mbir yooyu mooy dañ koo sàkk mu xaw a doyadi xuliqa al insaanu daifa doomu aadama dañ koo sàkk mu nekk ku doyadi moo tax ci beneen aaya mu ne ñu euh, doomu aadama bii nga xam ne mooy nit niñ ko sàkkee dafa xaw a doy waar inna al insaana xuliqa halu'a halu mooy koo xam ne munul tenir maanaam munul jël ay mbir yoo xam ne yu jafe la amma am am da ciy xër wa amma safaan ba day yomba xaddi moo tax mu ne ñu ida massahu charru jasuuan wa ida massahu alxayru manuan mu ne ñaar yii mooy séq doomu aadama waaye kan la ci amul imaan mu ne bu ko fitna dabee rek dina yuuxu ba ñépp dégg ko fitna fu mu ñëw rek ku ne dina la seeti ey man day nangam man day nangam man day nangam waaye mu ne bés bu borom bi subhanahu wa taala soppee mu nekkat xiwal mu ne man waa dootoo ko mun a teg bët déedéet waaye nit ñi dañ maa sonnal man munumaa gàddu dépasse nit ñi man day def naa nangam ak nangam yaa axi yàlla moo mun a gàddu dépasse nit ñi waaye du yow am nañu dund te xamuñu la kon li nga ja jara ñaan mooy yal na ma borom bi subhanahu wa taala jox la may joxe loolu mooy xelaat bi yal na fekk ku ñëw laaj rek fekk ko fi ma jël jox ko loolu mooy laaj bi waaye nag doomu aadama déedéet waaye mu ne lii nag illa almusallin ah amma ñay julli nag mu ne déedéet lan moo waral loolu inna salaata tanha anil fahshai wal munkar mu ne lii nga xam ne mooy julli ah day tere lu ñaaw day tere lu yées day tere lu bon kon kay julli te terewu ko ko xamal lii ñu génn léegi moo nekkul ca moom kon yal na ko borom bi subhanahu wa taala def ci ñun kon ponk bi mujj walla boog étape bi mujj ci ñetti xaaj yim ñu xaajaloon diine benn bi mu tuddee ko islaam mu waxal ñu fa yu bir yi beneen bi mu tuddee ko imaan mu waxal ñu yu nëbbu yi léegi nag mu ñuy jëm ak ñun ci al ihsaan mooy rafetal nooy rafetalee yu feeñ yi nooy rafetalee yu nëbb yi kon al ihsaan mooy rafetal ihsaan boobu nag la borom ba subhanahu wa taala digaloon doomu aadama mu méngale ko ak moom ni mu jàppee doomu aadama mu dal di ko wax ne wa ahsin kama ahsana allahu ilayka mu ne rafetalal ni borom bi subhanahu wa taala rafetalee jëme ci yow jox na la ay cër yu mat sëkk loolu rek xiwal la loolu rek rafetal la kon mu ne yow itam nag fexeel waaye mbaax boobu yow itam nanga ko jëmale ci keneen kon dëgg-dëgg ihsaan borom bi subhanahu wa taala moo ko digle te boo xaajoon diine ñetti xaaj rafetal boobu mooy ñetteel bi waaye dëgg-dëgg lan mooy rafetal mooy gaayatul ixlaas mooy sellal lépp looy def na sell na nga xemem na nga joortu dëgg-dëgg pey ba ca borom bi subhanahu wa taala laa ko bëggee moo tax ci suratul insaan borom bi subhanahu wa taala ña ragaloon bés penc jëf ngir yàlla mu ne musal naa leen bés penc am ñu ne aaya boobu mu ngi wàcc ci ali ibne abi talibin ak i njobootam mooy lan yuufuuna binnadr ويخافون يوما كان شره مستطيرا لما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعصيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا mu ne ñii la mu ne ñoom lépp rek lu ñu tegoon seen bopp dinañu ko def ba mu mat sëkk mooy niséer lépp lu ñu niséeroon rek ñoom dinañ ko def ba mu mat sëkk waaye nag ñu ngi ko tegoon ci ragal bés pénc ak danger bés pénc loolu moo tax dañu yitte woon joxe ñam dañu yitte woon lele ci ay miskin mu ne mooy ku ñàkk muy jirim muy koo xam ne dañu teg loxo ci moom mooy prisonnier mu ne dañu yitte woon leyal ñii te ku ñu ciy jox rek daa am lu nekk ci seen biir xol innama nut'imukum li wajhillah ah li tax ma lay jox lii day mooy ngir yàlla de allah laa jortu mu fay ma de du yow de innama nut'imukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura bëgguma nga fay ma de ngir ne ah kii de ku baax ci man na bàyyil ma defal ko mu ne du looloo tax ñu jox waaye bëgguma nga sant ma it kon duma la joxit ma ne la ñaanal ma it la mais allah ki tax nga def moom gis na waaye mu ne doomu aadama bi melul noonu nag bu joxee joxe rek ñëw dal di toog ca grand place ba nag ahlaktu maalan rubada tey lu ma joxe ah diw de moom bu dul woon man xaw ma fu mu jëm diw moom diw moom day bu dul woon man xaw ma fu mu jëm gis nga ahlaktu maalan rubada mu ne nag borom bi subhanahu wa taala mu ne dafa amul ngëm ayaxtabu an lam yarahu ahad waaw dafa foog ne moom kenn gisu ko dafa foog man yàlla mi tax muy def dafa yaakaar ne gisuma ko kon foog mu waxal ko doomu aadama yi kon loolu nga bëggoon jeex na kon fi man man yàlla moom amatoo fi dara kon gaayatul ixlaasi mooy ixsaan mooy dëgg dëgg dëgg sellal looloo tax sellal boobu ñu ne mooy iqaau lamali ala akmali wujuhihi fi zahiri walbaati mooy jëf ab jëf ni mu war a mel ci biir ak biti léegi nag ñu ne sellal boo buggee xel natt sa bopp sellal nga wala sellaloo foo koy seet mu ne dangay natt sa jaamu yàlla ca nit ña ak sa jaamu yàlla sa biir néeg yow kenn ñaar yooyu bu gën a rafet boo fekkee ba ca nit ña boobu nga gën a sawar boobu nga gën a rafetal sellaloo boo gisee ba ngay def sa biir néeg nag fa la sa xel gën a dalee fa nga gën a sawaree fa ngay gën a góorgóorlu fa la rukuu yi di matee fa la sujud yi di matee fa la taxawaay yi di guddee ah kon nag joortul na yow ab sellal mu ngi ci yow ndaxte kenn gisu ko ku dul allah te kooku nga bëgg mu gis ko kon moo taxoon mu ne ab naa fekk moom foo ko fekk rek la muy jëf rek ku ko nekk li dong moo tax moo tax mu ne ñu wa ida qaamu ila alsalaa qaamu kusaala yuraauna annaasa wala yadkuruuna allaha illa qalila moo tax boo leen jiitee boo ne na nga waa yow ñi nga jiite daa am ñu am soxla nekk sa gannaaw naam ndax kii jiite mu amul soxla ah borom bi subhanahu wa taala moo waxoon lan faqra'u ma tayassara min alquran naam borom bee ko wax ku ko jàngale mooy yonent bi sal allah sallam waaye jiite na jàng suratul baqara jullee na timi suratu tuur kon dañ koo gën a xam ay taxawaay wala yeneen la muy wone mooy imaam imaan ci boppam moo fa nekkul waaye di nga dem fekk ko ci caaxaan nag deux heures de temps trois heures de temps mu ngi taxaw tenir ci caaxaan boobu wala mu taxaw ci bitigam bu client yi daggul rek mu ngi taxaw fee client yaa ngi ñëw rek mu ngi taxaw ah kon nag lan moo li xew mooy li borom bi subhanahu wa taala waxoon ah mooy ithaaru lxayaati dunya ala al axira mooy gënale dundu aduna bii ci alaxira yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal kon nag lii di ixsaan mu ne ñu ruknun waahidun moom benn ponk dong la rafetal benn ponk dong la te laajoon nañ ko yonent bi sal allah sallam mu dal di tontu mu ne ñu an taabuda allaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka nanga jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis mu ne yow soo ko munul gis mais moom moom ngay gis kon loolu la la doy nanga jaamu yàlla mel ni yaa ngi gis yàlla mu ne soo munul gis yàlla moom yàlla mu ngi lay gis borom waxdatul wujud nag xadis bii ñoom dañ koy firee nañu bëggee waxdatul wujud mooy ñi gëm ne yàlla dina jaxasoo ak jaam bi nit kii dem dem dem yàgg sax dootul wax ne subhanallah day wax ne subhaani ma azama sha'ni la hawla wala quwwata illa billah day dem dem yàgg mu ne maa màgg waay la hawla wala quwwata illa billah kon ñoom ñu ne an taabuda allaha ka annaka tara fa in lam takun tara mu ne na nga jaamu borom bi subhanahu wa taala ba nga dal di jeex soo nekkatul rek gis ko moo tax dañuy génn di kurkuri naan maa yàllaak yaa yàllaak gis naa yàllaak moo tax borom bi subhanahu wa taala mu ne allahu akbar innama yaduuna illa shaytaanan marida mu ne woowu leen lu dul seytaane bu féttirlu waxul sax seytaane bu yemamaay de mais seytaane bu féttirlu mu ne moom ngeen di woo ndax woo ba pare génn di dóor sa dënd nga ne maa yàlla ajiib am na benn ustaas bu am bopp Aliou Sow mu ngi dëkkoon yaraax am ku mu dëkkal ku mel noonu wir du bem yàgg rek dal di génn rek fekk Aliou Sow mu ngi toog mu ne ko yaay yàlla mu jog rek mu ne ko mi naw maa la akara mu ne ko xaaral ma yóbbu la àllaaxira mu ngi yoroon benn yetu kel rek dóor ko ko mu daanu xum gaa yi ne Aliou Sow dof la mu ne ah du may yàlla ma yóbbu la àllaaxira waaye kooku de keroog la géej dafa wax ñu ne Aliou dof la mu ne naam kon yenn yi doomu aadama de ko war a settantal dal di ko xoolaat borom bi ne dalil bii nga xam ne mooy dalilu ihsaan mooy inna allaha ma alladina attaqaw walladina hum muxsinuun mu ne borom bi subhanahu wa taala dafa ànd ak ñi ragal yàlla àndu xam-xam ak dimbali leen mu ne dafa ànd ak ñoom ak ñan walladina hum muxsinuun ak ña nga xam ne dañuy rafetal kon jaam bi lépp lu muy def da koy rafetal xoolal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne rafetal rafetalal xatta reyin jullit di xeexal yéeféer ci jihaad mu ne boo koy rey tànnal rey ko reyin bi gën a rafet nga xam ne bu deewee sax ku xool néew bi du gis lenn lu ñu jàngati reyee ko ni gën a rafetee mu ne booy rendi rendil ni mu gën a rafetee moo tax mu ne inna allaha kataba al ihsana ala kulli cheyin فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة فإذا ذبحتم وأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم سفرته ليرح ذبيحته mu ne borom bi subhanahu wa taala bind na rafetal ci lu ne booy rey rafetalal reyin bi booy rendi rafetalal rendinin bi mu ne booy rendi nammal paaka bi ba mu ñaw nga noppal la ngay rendi omar ubnul xataab radiallahu anhu gis kenn ko womot ab xar di ko diri di ko ñoddi ngir rey ko umar ibnu xataab radiallahu anhu mu ne ko wayhak mu ne ko yow day musiba topp na la waaye yërëm ko yërëmal li nga yóbbu donte danga koy rendi ji yërëm ko loolu mooy ihsaan looy def rek nga def ko na muy gën a rafetee mu ne ñooñu kat borom bi subhanahu wa taala dafa ànd ak ñoom borom bi subhanahu wa taala da leen di jàppale yal nañu borom bi baaxee te ña nga xam ne dañuy rafetal kon buntu boobu des na waaye gannaaw waxtu wi jot nañ ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal nañu may fekkee te tal ko dañu mun koo mottuli اللهم أرنا الحق حقا وأرزقنا حسن اتباعه وأرنا الباطل باطلا وأرزقنا حسن اجتنابه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله mbokki jullit yi suñu bind ak suñu daje ci leerluwaat paspasu ahli sunnati wal jamaa ci li quran saxal ak sunna ñu ngi woon ci arkaanul iman mooy ponk yi iman mu limal ñu juróom benn ya te jiitoon na mu limal ñu juróomi ponk yi islaam ñu sooboon nag boo gëmee loolu ba pare war koo rafetal nag loo ciy jëf mu rafet lu rafet ci sharia nag mooy loo xam ne ñaari charte daje na ci الإخلاص والمتابعة موي سلال ak roy loolu bu amee rek rafetal am na waxoon ñu rafetal boobu moom benn ponk la am an taabuda allaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak looloy rafetal nga taxaw di jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis mu ne soo ko munul gisit amal pas-pas ne moom mu lay gis kon loolooy rafetal benn ponk boobu la am muy waxub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu indi woon ci benn dalil ci qur'anul karim borom bi ne ñu inna allaha ma alladina attaqaw walladina hum muhsinuun borom bi day mu ngi ànd ak ñi ko ragal tey rafetal borom bi mu ngi ànd ak ñi ko ragal tey rafetal te ñooñu dong itam ñoo mun a rafetal amma suñu aaya tey ba léegi ci ponku ihsan borom bi subhanahu wa taala di ñu leeralal li nga xam ne mooy rafetal day feeñ ci comportement doomu aadama rawatina bu jëmee ci borom bi subhanahu wa taala ngir jaamu ko xol bi ñaara kii daje arrajaau wal xawf yaakaar ak ragal yaakaar yërmande borom bi subhanahu wa taala ak ngënalam ragal itam wute ak ndigalam dajeeg mbugalam amma jëmm ba day am lu cay ne mooy alxasiyatu wal xusuu wal inaaba day dal di ragal toroxlu suufe dellu ci borom subhanahu wa taala biram yépp mu joy ko jëmi ko ci moom looloo tax borom bi wax ñu fii ne وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك أو وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم borom bi subhanahu wa taala mu ne nanga wàkkirlu lan mooy wàkkirlu mooy jël say mbir yépp dénk ko borom subhanahu wa taala mooy jébbal sa bopp allah li nga xam ne noonu la ko borom subhanahu wa taala waxee woon ibrahima alayhi salaam ba mu ci wama wootoo mu nekk ab xaritam mu dal di ne ko jébbulul mu ne ko aslamtu lillahi rabbil alamin jébbal naa sama bopp borom bi subhanahu wa taala ndaxte mbir yu baree ngi nii moo may jubal bu ma feebaree moo may faj moo may dundal bu ma deewee moo may dekkal kon kii dong lay dénk sama bopp waaye duma ko dénk ku ñuy wax ne génn na aduna mu ne kaña ndaxte kooku manalul boppam amalul boppam indiwu fi boppam te du delloo si boppam looloo tax ñu ne faaqidu cheyi laa yubri ku amul dara bu la ko buggee jox coono mooy dal di am koo xam ne moom dundam nekkul ci loxoom wërsëgam nekkul ci loxoom ab njubam nekkul ci loxoom waaw yii na nga bugg ko moom na la ko defal te moom ci boppam yorelu ko boppam kon loolu du sotti moo tax ñu gis ne malikatu saba ba mu ñëwee ci suleyman alayhi salaam mu dal di feddiliwaat leeralaat kaddu ibrahima alayhi salaam dafa waxoon ne man nii day jébbulu naa maak suleyman lillahi rabbil alamin ñëw na gis cib nguur cib kattan cib am-am lu raw nguuram noonu naa jébbalu ci moom noonu naa jébbalu naa ci Suleymaan waaye la booba xol bi leer na jëm ci borom bi subhanahu wa taala tëralinu diine aslamtu maa Suleymaan lillahi rabbil alamin maak Suleymaan ak li nga am yépp nag jaam nga kon maak yow jébbal nañ suñu bopp Allah kon loolu mooy atawakkul moo tax mu ne fii alal aziz rahim ki nga xam ne moo tedd te kowe te te ñëpp am lu ko të te bari yërmande lool mu ne ci kooku ngay jébbal say mbir